avec les parlementaires qui sont euh, des acteurs très importants dans euh, la mise en œuvre, mais qui doivent aussi être nos alliés dans le cadre de ce bilan parce qu'ils sont les dépositaires de la voix du peuple sénégalais. Nous avons eu énormément de progrès et nous nous en réjouissons. Au plan international, quand on se réunit euh, et que nous euh, rencontrons les autres, nous voyons exactement comment nous avons pu évoluer, quels sont véritablement le, le, euh, les, les, les, progrès que nous avons faits. Euh, à l'état actuel, nous avons constaté qu'il y a euh, quand même un recul, de représentation dans le gouvernement. Et ça, c'est un problème. Peut-être au niveau des instances électives et semi-électives, on a des problèmes pour l'application de la loi sur la parité.